dikkati na fiche de parrainage tey lañ cay jot tribune yéen kaay ne ma déet neel kay tey ji la sàll ngaari lam tooro buur géde di dëkk nag waa cour de justice bu CEDEAO Mbaye Cissé spécialiste ci wàllug droit ni parrainage bi day ërtal ay nit di ërtal ñi xam ne ay candidat lañ ci réew mi waaye li ëpp solo moom moo di moom parrainage bi ci boppam ab violation la boo xam ne ab arrêté la bu haute cour de justice bu CEDEAO daal di def ñaari fan ci weeru avril 2021 bii ñu ne président Macky Sall yow mi jiite Sénégal tegal leen parrainage muy xeet woo xam ne ab di konte la segg nit ñi ci anam woo xam ne jaarul yoon la yow président Macky sàll lii ngay def sam réew ba ko juge communautaire ba ci boppam ni président Macky sàll damaa bëgg nag lépp loo xam ne day xañ sam askan liberté nga daal di koy bàyyi waaye tam ñi nga xam ne dañoo bokk ci élection lépp loo xam ne xeer la di leen ërtal di leen faxastal ngir duñu bokk ci la élection yow Sall ba ko cour bi joxoon ko délai juróom benn weer ngir nag mu defub rapport ci lañ ko sant fom ca toolu daal di leen koy jébbal ba tey France xam nga nguurug Sénégal day la indil CEDEAO mi nga xamante ne kon na parrainage da dafa daal di soppiwaat ni ñu tëggee élection ci réew mi ba soppiwaale nag parrainage yi ci boppam na muy daal di doxee léegi nag dañu koo wàññi nee ñoo yaay daal di utaat geneen façon parrainage boo xam ne du parrainage citoyen muy député ya te ba tey ma ne la war maalu la nga xam ni moom la CEDEAO bëggoon ci parrainage yi ndax CEDEAO la mu bëggoon moom moo di sall ngaari lam tooro buur gële daal di tàbbal parrainage géej ndax nee na anam woo xam ne noonu lay seggee ñay bokk ci élection ña neex daal di jàll moom président Macky Sall ña nga xam ne soof nañ ko ba mu leen di ciipatu mu téye leen ne leen yéen du ngeen dem lii nag dëgg-dëgg lan lay nuru las yéen kaay ne ma en tout cas parrainage bi door na loo ci mënti waxit noppub tëx la président Macky Sall maye xaw waaye tàmbali na tey jii mani la fiche collecte yi waaye itam xibaare ca war a jógee daañu ko jébbale nag ni ki tey 24 heures yéen man parrainage bi waxuma la dina tàmbali tey rek de waaye explication bu mucc ayib daal dana ca am direction wala seen i mandataire nees ko war a jëfandikoo ñoom mandataire yi nag ngir ñu ñëw faaw ñu jébbale ab lettre de désignation boo xam ne candidat bi ci boppam moo ko daal di xaatim Amadou Ba bu Pastef daal di ne waa Pastef tey leen rek fépp foo xam ne ab ndëgg sërëx la ngir ñu fexe ba Ousmane Sonko du bokk ci parrainage yi ñun pare nañ ca yéen nelaw leen sànni tànk te daal di yandoor du Ba ne waa Pastef am ngeen candidat te Ousmane Sonko lay daal di wuyoo parrainage am déet ñun daal dañuy bokk léegi fa yéene vox populi daal di ne moom kay sëriñ Moustapha njiital Moustarchidine nee na Ousmane Sonko la mu doon gantal waa yeewi yëpp naan leen dafa sonn booba dafa bëggul gisee ak ñoom wax ak ñoom ndax la mu doon wax man sëriñ Moustapha wax na ma ko ñay wax ne nag damaa bëgg électorat bu Ousmane Sonko nañ dox fa wi sëriñ Moustapha ne maa ëppale électorat te bu wax jotee dinaa wax léegi fa yéene kaay naan sëriñ Moustapha kay tàmbali na ma nga naan ña nga bëgg bloqué Ousmane Sonko waaye du antu te xamuñu ne sax su ma neexee dem ànd ak Ousmane Sonko te man sëriñ Moustapha bu ma duggee ci yi day daal di jeex ndax waa bennoo sax am na ñu ma cay woo xool fu ma féetee Serigne Moustapha naan am na ñoo xam ni bëggoon nañ ñu fekk fii ci suñu gàmm gi dal ci suñu kaw ci anam woo xam ne jaarut yoon l'observateur naan maan ci mawlitu nabi gi daal la yëkkati yile kàddu ca guddig leer ga la yëkkati yile kàddu guddi ga nga xam ne ñu ngi doon màggal yonente yàlla Muhammad yéene kaay bi naan man dem nañ saytu ji ku ci nekk ci réew mi ceetu këru diine yi naka la ñu màggalee ganes àdduna gën di mindeef tribune yéene kaay naan man ci ganes àdduna googee moom ministre bi dénk kaaraange nga biir réew mi Antoine Félix jom ma nga naan ñi nga xam ne fi ne dañuy xeex tarixa ci réew mi ñu ngi leen di artu de bàyyi leen nag a si nga xam ne yéen ngi koy def bàyyi leen salfaaje gi ngeen bëgg a salfaaje gëm-gëmu askan wi ku nekk na ne ca la mu gëm daal di koy sàlloo doxal ko waaye ne damay gëm lii te keneen du gëm leneen Antoine Félix Diome ne na dakk ci réew mi fitna ak tiitalaate gi ngeen di def ci tarixa yi na dakk ci réew mi lu ko may bu ñu dalee seen kaw day dina ñaaw tribune yéen a kaay jox kàddu moom Malick mu ne candidat la ci élection présidentielle bi te naan réew mi dinañ ko jébbal ndaw yi ndax ndaw yi ci boppam am yaakaar ci ñoom mooy dëgg Walf Quotidien jeexee sampub laaj consigne de vote mën la fan la taxaw tey ci réew mi ne dem leen voteel diw ndax nit ñaa ngi koy jëfee ci réew mi ba tey loolu ab laaj la ñu des ak Walf ba tey mu xamal ñu ne lu toll ci juróom fukk ak benn ci lekkool ci banlieue bu Ndakaaru dañu daal di fees dell ak ndox lu ëpp fukk ci amu nu ay gaanuwaay ñu xam leen nag ñu ngi soobu ay bës bii ñu jëm ci ubbi teg l'école ci réew mi waxtu jëfandikoo l'école yi nekk ci banlieue bi nekk safaak marwa daanaka yéen bi naan man coow li mooy fun jëm l'observateur nan man lu coow li bari bari màggal nan guddig leer gi lii ko di jee nan maan Abdoulaye Sylla taxawu ëttu këru diine yi jaaree ko ci fuqar ñi kano yi ngir ndox mu salte meeg yu bon yi mën a dem di ndoxum taw bi fépp foo xam ne këru diine la woon saxu garab ñu dindi jébbal leen lees terale gan yi ay junni junni nag ak leneen la mu àndal loo xam ni gan yi daanu ko soxlawoo diggante mi dina bàyyi ci waawan cene ba ak yeneen këru diine yi mu daal di cay taxaw turbine yéen a kaay naan man terewul suñu ndaw day ña ngay daal di des ca géej ga ba tey ci 2023 gii nee ñu lu toll ci ñaari junne juróomi téeméer ci ay màngankat daal dinañuy faatu mbaa ñu réer ci waaxuk Méditerranée gi libération yéen kaay naan man barsa wala barzaq gi day nguur gi waxu ci waaye suñu doom yaa ngi dem te ñu ngi faatu wala it ñuy réer ci anam yoo xam ne doy na waar lool ñaar ci gaal yoo xam ne benn bi juróom fukk ak juróom ñaar la beneen bi juróom ñaar fukk ak juróom benn ciy màngankat mu defoon ko daal dinay teer ca dax la beneen boo xam ne juróom ñaar fukk ak la defoon dem àgg île Canaries baabu seen consul général bu Sénégal ca dax la ne jàpp ko benn fan ci weeru awril jonn yàlla tey day marine bu Maroc daal nay gatandu daal di xettali ñaar fukk ak ñeent ci gaal yoo xam ne ay doomu Sénégal la yeboon lu toll ci ñaari junne juróomi téeméer ci ay nit nekkoon ca am nay ndaw yoo xam ne ñetti yoon ma ni la seen gaal daal nay teer ca dax la terewul ñuy tantewaat benn ndaw ci ñoom xamal na ma ne yaayam moo bokk tontin teggi ko jox ko ngir mu dem Barça ca Mauritanie libération ne ma ñu dëggal ni juróomi doomu Sénégal faatu nan fa fii ci réew mi ñetti gaal yoo xam ne jóge woon nan Kafountine bàyyeekoo woon Malika wala it Ndar gi